salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi galaay Bamba mu ngi fii ci ndindi ndindi Serigne Fallou bu nee ndindi nag xel yëpp dem ci Kazu Rajab ndax Serigne Fallou Mbacké suñu yaakaar yi tey ak ëllëg ji nee na yonent bi dafa ne lay mën a cëpp man Fallou aw bésa du ma sonal kenn waaye boo xoolee ndindi ni mu taaroo nga xam ne njabootu Serigne Fallou jëmmal nañu ko ndax fii ma taxawee ci rond-point ndindi di croisement bi Cheikh Abdou Karim Mbacké moo ñu féete suñu ndeyjoor boo defee nii sama càmmoñ lim waa kër Serigne Abdou Fatah Mbacké waaye Serigne Jili Abdou Fatah suma Serigne suma xarit Mbacké Balla yaa ma ko tàmmaloon maa ngi ñëw ci yow Mbacke dinaa la siyaar si nga dooraan ca kanu ga ñu daan dóor waaye Cheikh Abdou Karim Mbacke dama naan mooy borom ndindi ak nit ñi donnu baayam ci lépp waaye nag suñu continuer tout suñu ndeyjoor Cheikh Mouhamadou Rafaal yi Mbacke Balla yàlla na fi yàgg loolu te wér ay kàddu yu soññee mos a tàggoog ñun mu ngi suñu ndeyjoor waaye buñ jógee ci loolu fii moo woon ginnaaw nii dañuy dem ci pencum Serigne Afia Mbacke mi nga xamante ne ni moo toogoon xayra ca magam bu baax ba ànd faak Serigne Modou Boussa Dieng di liggéeyal Serigne Fallou waaye tey dafa jot Serigne Afia ñibbi si ndindi Afia waaye Serigne Baara Afia bi jàngi jotee Mbacke Balla da dem moom lañ tuddee Serigne Baara mi njëkka a doon baayam ak maamam ci xalif ak tuubaa gi gii tey moo ne ndindi afiya gii dama koy màggal bu baax a baax galaay taalibe Bamba ak équipe am nag ñoom Baye Sidi Mbaye Elmo Babacar Mbaye ak suñu jarbaat dañuy ànd ñun ñëpp moo wan leen table ba fa mu tàmbalee ba ca penc ma wan leen lépp ci Kazu Rajab gi ndax defe naa ni tey jii nii nii kenn dootul manqué ci tuubaa foo nekk ci àdduna dana la ko jox ba mu doy sëkk ndax defe naa ñaar ñi ma séq wër nañu àdduna warngal képp galaay taalibe Bamba ak nag ba ci kanam gars yi woon muriti Serigne Touba yeeg julliti màggal gi ñi nek Europe ak ñepp dañuy siaré Serigne bar lay ñëk njëkk waxtaanal après ma seeti Serigne Jili jëfé Cheikh Abdou Karim Mbacke way Cheikh Mouhamadou Rafa Ali Mbacke yalla nang fi yag lool tànd ak wër kon ayca gars yi galaay be Bamba ak yeen ci ndindi du yàqu waa ayca mbokki talibé yi fii la leen galay talibé Bamba doon wax table bi ñu janoon mo jëm ndindi afia fi ci suñu nday la lañuy fi ni ni way Cheikh Mouhamadou Rafa Ali ma wax mu ngi fi kërëm ñu ni uuf doomam ak mom xamni liggéey Serigne Fall bi du ci wét way Serigne bara afia mi ñu jakar lool di khalifa sëriñ Afia bi jàngi jotee jàngi alquran alxuraan xam-xam ndu mamam ja ak baayam ja ak turandoom ba di Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi njëkk a Serigne Touba waaye dafa ne day jëmmal ndindi Afia ku gis nii xam ne Afia ngi ne la ñu jëm galaay taalibe Bamba ak équipe am nag dañuy ànd rek comme ni ma ko waxee ku gis lii xam Cheikh Fada la ngi ki waral li ñuy wax rek bi yonent bi ne lay moo ni cëpp fàll aw bu sa kunta moom mi jaay njuréelem jëndee ko taalibe waaye sëriñ Afia ngi ni sëriñ bara ngi ni def mamam, def bayam ñu def ni rek ak yéen jumaa jee ñuy seen mooy pencum sëriñ Afia ku gis lii xam ni tey terrasse bi at yi néew rek wala ci ay weer sëriñ Baara dana ko toppatoo mu gën yomba dem waaye ku xam ni fii la Fallu daan defaree fii la jaaroo nag premier président du Sénégal Senghor na seng ca kaw kon ndindi Afia ak ca kaw waye Serigne falu borom Kasu Rajab neena moy Senegal, bambay bayam, mawdo ndijayam kon kokoy càmmiñal ma rema kunta busa Modou bu sa jeg mi dimbali Modou Modou ci ca baye bàyyi bara baye Cheikh Abdoul Karim mbake baye Serigne Abdou Fatah baye Serigne Afia tay nak lepp ci Afia ndax yatuna lol Cheikh mohammed Rafa Ali gis nañu soñe gi gis nañu soñe gi mbake Balla yalla nang fi yag lol te ndax say xutba kenn du ko jaawaleeg lu kenn xamul mbàkke yaa ngi ñu yedd di ñu soññ di ñu dimbali di ñu defal tawféex ak tawxiit waaye nii rek la mbàkke bi lislaam jaaxlee seen maamu ko defar moom Serigne Touba Mbàkke seen digganteeg Serigne Touba Serigne Fall rek ko ci dox te ku ne xamee Serigne Fall nu mu juboo woon ak magam bu baax ma Serigne Modou Moustapha mbake yërëm ay rakam Serigne Saliou min na xel kom nag ku ne xam na ko waaye nag borom taar meeg mbég mi di borom Saalum Serigne Basirou bàyyi Serigne Mountakha mbake mbake yàlla na fi yàgg te wér université bi neex na yaatu na na ñëpp jàng si nag kuy jullit jàng si war na la tabaxul université bu étudiant yi di xeex bursu déedéet lépp moo koy res ku weddi demal poroxaan waa kër Serigne Basirou téeméeri maam jaar lañ fa yor Serigne Saliou mbake mi def 12000 ndongoy laxasaay waaye Serigne Bara Afia li may faral di wax naan yilif say mag yilif say moroom yi bàyyi dalaa dal ndax sëriñ Afia mag ñu fi baay ñëpp Mbàkke ci sa ginnaaw lañ nekk waaye Ndindi Afia ak Galaye Talibé Bamba ak équipe bi dañ leen ni woon lépp tey fi sëriñ Fallou ak fi sëriñ Afia doon bayee ñu xam ni mbay rek am njariñ waaye Kazu Rajab gii dana utee Kazu Rajab bi bari dañ leen ko jox ba mu doy sëkk ay ca na leen xuus mbokk yi ñu yokk ba ca kanam ak kanam ni jumaay Touba akasa mbokki Talibé comme ni ma ko waxee rek Galaye Talibé Bamba ak yéen màggalu kas Rajab gi di ngeen ko dund bu baax a baax kenn dootu leen ko waxati ndax sëriñ Baara Afia moom la ñuy topp wone tolluwaay Serigne Afia ci ndindi Afia comme ni ma leen ko waxoon Cheikh Abdou Karim Mbacke moo ñu féetee ndeyjoor fee ca rond-point ba waa kër Serigne Abdou Fatah ku ci mel ni Serigne Jili suma xarit Cheikh Mouhamadou Rafali uuf doomam ji fii xam ni pencum Serigne Afia du ci wéet waaye jëmm ji ma toogal bëgg leen ko woon pour ñu waxtaanee yegg si bi rek ci tolluwaayu ndindi Afia ak Serigne Bara di Abdou Lahad Aw xam xam ko Serigne Afia ñu bàyyi ko mu nuyoo rek ñu waxtaanee ndax la 17 février bi dina uteeg 17 yu bari Cheikh Abdou maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar Talibe Bamba. ñoo ngi sant yàlla baax di jullu ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam di sant cheikhul Khadim di ñaan si muntaha yalla fi yàgg ta and ak wér Baraka khalifa serigne Fallu yalla fi yàgg ta mo and ànd ak wér Cheikh mohammed Lamine Baara Mbàkke khalifa serigne Afiya mu serigne Fallu mu yag fi lol ta mo and ak wér jef bëgg bamba wa Abdou khat tay fi ñu la fekk duñ fi gan lay wax waye Serigne tollu wayam ci Serigne Afiya ndax Serigne Afiya ak serigne Modou Bousso ñoo nekk ci khayra waaye Serigne Afia wàllam ci ndindi Afia Serigne Baara ne du niin taxawaay bi. jërëjëf taalibe Bamba Serigne Baara Mbacke mi nga ma laaj mooy doomi sëñ Afia Mbacke nekk koo xam ni waajuram da koo teel a bàyyi xel fa sëñ Fallou Mbacke jaar sëñ Afia foofee la sëñ Afia jaar sëñ Baara ndax doomi soxna la. bi matee dal jàng jàngal nañ sëñ baara yóbbu nañ ko fa nga xam ni mooy ca cil la ci dara maan di daara joo xam ne daara ju mag la ci réew mi sëñ baara jaar na fa jóge fa jaar ci loxo sëñ Modou waaye bi mu dikkee ci loxo sëñ Modou bu sa jeng mi nga tudd léegi dani sëñ Afia Mbàkke kii maamam noppi na ci moom sëñ Modou bu sa jeng waaw sëñ Modou sa Dieng moo ni sëñ Afia Mbacke sëñ Baara mii maamam daa noppi ci moom loolu loolu sëñ Modou Boussa Dieng moom sëñ Fallou moo ko wax sëñ Afia ni kii maamam noppi na ci moom kon kooku ku waajal la biñ ko waajalee ba noppi nag mu xàmmee di doomi soxna doomi soxna nag ñaar lañ koy xamee jaamu yàlla ak dundee ñaqam sëñ Baara Mbacke nag di jaamu yàlla di dundee aw ñaqam am jom lool lépp loo xam ni taalibe da ko daan ndamoo ni maa ko defal sama sëriñ moom mën naa wax ni moom sëñ Baara moo ko defal baayam ndax lam doon na ca sëñ Fàllu mooy jaay njureel ga jëndee ko taalibe jël taalibe ga joxe ko addee sëñ Touba noonu la sëñ Baara jaayee njureelam ci sëñ Afiya Mbàkke jëndee ko taalibe jël taalibe ga joxe ko addee sëñ Touba musta jàppe sëñ Afiya Baay bu ko jur sëñ Fàllu la ko daan xoole yaakaar ko lu sëñ Afiya bëgg mu def ko lu xam ne bu ko defee sëñ Afiya bëgg mu def ko moom sëriñ Baara Mbacke. kon daal ñëwam gi ngir yeesal dundu sëriñ Afia ci wàllu sëñ Fallou ci ndindi daal du lu bett xam nga njabootu sëñ Touba ku ne sa wàll. ndindi Afia gi may wàllu sëñ Afia. sànq ci sa biir wax wax nga ko xayra bu ñu ko waxee xel yëpp dem sëñ Modou. sëñ Modou nag day mag boo xam ne daa taaw ay rakkam waaye am rakk ju am jom sëñ Afia ju am jom la daal di sëñ moodu am nga xayra dinaa góorgóorlu ba mu ndindi Afia fii mooy liggéey sëñ Afia penc maa ngi nii fii la néegub yàlla bii ne wa anal masajida lillah falaa tad'u ma'a llaahi ahadan néegub yàlla bi fii la nekk sëriñ Afiya bi mu defee jàkk ji ba ko mu mel nii waaye baaxul sëñ Baara moo yeesal jumaa ji ba jumaa ji yees mel nii ci penc mii ren li may faral di wax ni màggalu spécial la ñuy doon ren moom dañuy dox tànk ak tànk mbagg ak mbagg ndax liggéeyu sëriñ Afiya te jaar ci Baara war naa fës liggéey bi fës na sëñ Baara moom mënewul wanewu moom day jëf ba boole ci noppi waaye bis bu wane wu jotee bis bu feeñee kenn dootul feeñ ndax léeg-léeg nga ñëw ci jotaay fekk ko mu laxasaayu ànd ak yi ci baas yeeg man gis na ndax Baye Fall la Baye Fall gi da koy dund da koo donn ndax ku doon Baye Fall ci yoonu murid say aafiya tax nga doon Baye Fall say aafiya ak Baye Fall moo ko dundal ba ku ne bëgg a doon Baye Fall kon sa Baara bu dee xalifaam bu la nuyul ni kii Mbàkke la sant doo ko xàmmee loolu ak Baye Fall la ko waral wane ko doxewu ko li jub ci nag bi dana xajul ci cin li waaye dañuy door a doon yegsi rek di wan ni mbokki taalibe yi ñu ngi ci ndindi aafiya jotaay bi dañ koy gën yaatal ndax ci kanam tuuti sëñ bi war naa ñaanal taalibe yi siyaare waale suñu mbokki taalibe yi na Allemagne ndax sëñ bi ku ne xam na ni ma ngoon Allemagne waaye lu ñuy waxtaanee la ci kanam waaw sëriñ bi ma ngoon Allemagne ca Allemagne googu lu mu fa mus a ñàkk bàyyam la ko jox xanaa déggu man la bu dee kër ca Pikine nga ni ba fa la fa kon kay kooku teggil na tuuma bàyyam. Baye Sidi Mbaye xam na dara ndax 24 décembre bi woon na ko Sénégal. wër jeex na xam nga sëñ Baara Afia. Ford 4x4 yu jar ay millions. bu see Afia duggee sañ Baara ko jënd ci àllam jox ko addee sëñ Touba da koo jënd laata boobu di màgget mu jëndaat beneen jox ko addee sëñ Touba. mooy ki nga xam ni keroog ba mu yóbbu sañ Afia Allemagne sëñ Afia dañu ko danga may neexal ma doog laa yóbbu nga doog maa yóbbu danga may neexal nga doog maa yóbbu mu génne 1 million. siyaaree ko baayam xanaa xamoon sëñ Modou Boussa Dieng fa may daan le sama kàddu daa jox un million sëñ Fallou sëñ Fallou ni ko sa bët xonq na nga weexal ko sa bët dootul xonqati waaye sëñ Baar Afia daa yëkkati un million jox sëñ Afia sëñ Afia Mbàkke ni ko weexal nga say bët waaye say bët du xonqati mooy noppi gi sëriñ Modou Boussa seedeel sëriñ Afia ci moom si mooy seede si mooy lam ne woon ko sëñ Fallou maam daa noppi ci moom kon taali bëgg maam ma daal yaa ngi nindi Afia kër sëñ Baara Mbàkke bi am jom bi taaw bi bëgg seexul xadim taaw bi doyloo sëñ fàllu tey suba bi bisu màggal Kazu Rajab ku ñëw nindi aafiya di nga gis li sëñ baara liggéey sëñ aafiya da nga xam ne sëñ aafiya Mbàkke bàyyi na fi koo xam ne mate na ko sëkk ndax taalibe yi ñu ngi wàcc ci Sénégal jóge Gàmbi ndax ku ni Gàmbi wax sëñ aafiya ak Gàmbi Moussa aafiya di Moussa Ngom ko ne xam na ko diggante ma sëñ aafiya yàlla ko yàlla xare àjjana ca Gàmbi Gàmbi sëñ aafiya dimbali na leen waa Medina ñëpp a ngi wàcc sëñ aafiya dimbali na man la waa Pikine sëñ Afia Mbacke dimbali na leen ñoo ngi waaj waa Mbour ñëpp a ngi waaj koo gis ci yoonu murit wi di am kóllëre rek sëñ Afia tey mi ngi waaj ngir ñëw ndindi Afia xam ne sëñ Baara kat taaw bu am jom la compétitif la ku bëgg sëñ Tuubaa la te nag ma neex sëñ Baara ña nga gis sëñ Afia rek ngay gis ci moom nee naa la maat yi doy na sëkk moo ne woon ci loxoy baayam tey boo ko fekkee ci kër sëñ Baara war na ni sëñ Baara lu baayam amoon saraxew ko mayewu ko léblewu ko da koo téye ci loxoom lu sëñ Afia bàyyi laa wax sëñ Baara mayewu ko saraxewu ko léblewu ko da koo ngëpp ci loxoom moom sëñ Baara Afia danañ ci gën a yaatal. incha allah mbokk yi mu ngi nii rek toppee leen ko fii ci Actubuzz ak presse 24 dañuy dox ak lépp Baye Sidi Mbaye nam la ko joxe woon ca 24 décembre ci liggéeyu Serigne Afia moo indi Galaye Talibé Bamba fii ci Ndindi Afia maa ngi gërëm nag équipe bi ma àndal yëpp ak Serigne Abdou Lahad Aw ak Ahmadou Bamba waaye Serigne Baara dana waxtaan ak ñun ci almaa balaa ñuy jub ci màggal gi. da nga am problème ci sa biir néegu sëy moo xam euh, kattan bu néew la wala manqué man yu wala euh, seen gam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu ngeen di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew.